moom moom Boy Niang ñaari combat yi mu am nii bii bi ci importance mooy tafaatin bi mu koy jàlle lu mu ko jàllal la war na ko jàll tafaatin tamit mm-hmm. moom tamit mm-hmm. yoonam dafa xaw a jàdd bu waree bëree du am combat Tapha Tine ëpp na ci bokk a bari année blanche bu loon booy ñaa day toog trois ans du bëree bu loon booy ñaa bi tey comme maam kan ko ko jox mu ne non mais c'est parce que il est c'est un dur au mal il est dem naa ba ne Tapha Tine ay seconde bañ yi foog nga koy wàññi suuf bu loxo yu tàngee ba pare nga mën a bëre boole ci te gars yi nëbb mën a bëreem gars yi dañuy nëbb mën a bëre tafaatin waaw ko dàq bëri ci lamb ji boo nee doo gis ñeent non bari est-ce que mat na ñett ba mu commencé bëre ba léegi ca mbapat ca aar jeune lutteur mën ba pare nañu bëgg ko mais xam nga loolu parce que du bëri lu bari gars yi nangu ñu bëre moom imagine toi su bëri na Boy Niang bi tey fu fu ñëwaat. kon loolu nag Tafatine Tafatine ak Forza même problème la du mhm. am. parce que seen loxoy dee paka la seen loxoy dee tànk adversaire daf leen a jafe. parce dañuy tànn ñan lañ war a bëri. damay <laughs> bu mu jaaxee dama ko conseillé na ko teggee sa tànk ci dóor. bis boo commencé la mission di bëre. waaw gars yi dañoo ko bëre yow. tant que Kourpa ñaa ngi tànk di saxaar. waaw ses adversaires dañuy néew. <laughs> dañuy néew ah dañuy dellu si waat ci pay per avant ñuy jeexal. Mhm. solution lan la mhm.